alors suma suma teewaay bu ma ko defoon avant ñu ne xëy na def ci am intérêt mais que léegi moom nekk nekkatul euh, ci kaw suuf te cancer moo ko yóbbu jàpp naa ne euh, normal na ma taxaw ci ñi côté ñi am cancer ngir mun leen a jàppale euh, jàppale bi ñuy jàppale ñi xeex cancer nag jàppale jigéen la rek parce que jigéen mooy yoreek famille jigéen lay dal ci li ci ëpp kon jaadu na ñun ñu ñëw ànd ak ñii di waa LISCA ak képp kuy xeex cancer ngir ñu mën a nekk ci seen côté pour xeex jàngoro bi nga xam ne ñi muy dal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom mënuñu ko déggu maanaam ci wàllu xaalis parce que dafa bari lu muy jël ci doomu aadama daf lay ngacc jël sa xaalis ba noppi doog la rey mais euh, loolu nag jàpp nañ ne état rek moo ci mën a c'est pourquoi moo tax ñu lancé message état pour que euh, état bi mën a dimbali ñiy xeex ci wàllu cancer ak ñi am cancer parce que feebar la buy def ay musiba te loolu état rek moom moo ko mën état rek moo mën a état rek moo mën dimbali ñi nga xam ne ñoo yor cancer pour une prise en charge gratuite ngir xeex bi mën law et puis également centre yi ñu yaatal ko yaatal ko am ñeneen ñet wala ñenti centre ci réew mi euh, benn centre bu mag bi ñu fi xam bima xam man centre privé la euh, lolu japp nañ ne état war na ci mëna a dugal loxo